Heavy Mess.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 quatre heures et matin li ko indi nag mooy benn oto particulier marque Hyundai ka ko doon dawal di woo ci turu es mbuub nee ñu biir dawal googu la dem ba yàgg mu perte contrôle musiba naaru lay naka noonu ci la roue bi daal di claté chauffeur woto bi ci kaw tali bi tel tel tel ba mu jee teeri ci ab camion frigorifique mbëkk ko ba maare dee taali chauffeur bi jële ci ay blessé ñaar ña nekkoon ci biir moom ci saasi lañu faatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne daw ndànk dal ndànk moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xewoon ca Pikine ba Seydina Mohamed Diop ñakk bakkanam fi mu ne yëngu na ndax juróom benn policiers yi ñu jot ne ñoo def ñaawteef googu teg nañu leen loxo Seydina Mohamed Diop mi ñàkk bakkanam nag nee ñu guddi 24 jëm 25 mars bi weesu la ko policiers seen loxo ci enquête bi nga xam ne ni nag digg lañ ko joxoon ki defoon li ni mel di procureur bu Géejawaay la beneen xaritu Mohamed Diop bi dal di dénoncer police yi ndax nee na bi ñu leen jàppee dañu leen yóbbu ca technopole dal di leen duma duma yu metti ñu jële ci ay blessure ba blessure yooyu moo mujjee yóbbu Seydina Mohamed Diop ay waay juróom-ñaari police bi ñu tegoon loxo nag te yaakaar na ci mbir mi la bokk moom l'enquête bi wone ne ne taqewu ci laalewu ci ba tax nañu ko mu dem yoonam ci fàttali na deewu Seydina Mohamed Diop boobu yëngaloon na Pikine daal di fa indi ba ñu lakkoon fa ab bis Dakar dem dikk moo tax ay waay suñu mbokku police yi ndànk nag moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax Amadou Ba di candidat Benno Bokk Yaakaar bi bokkoon ci jongante élection yi weesu te ñàkk ko ndax Bassirou Diomaye Faye nee ñu fi mu ne ma nga ca retraite spirituelle foofee ca makkatal mu karam moom daal gannaaw bi mu ñàkkee élection yi la fa bu jëm ca yàlla dem santi ko <laughs> ko noonu la de am sant ñàkk sant li ñul ci soow mi kay mooy Amadou Ba mu ñàkkee élection yi ba léegi kenn gisu ko ci wetu Macky ba Macky dem yoonam kenn gisu ko keroog ba ñuy installé Bassirou Diomaye Faye moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graaw corona la laa wax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye na fi mu ne sol na mbubbum njiitu réew mi ndax conseil constitutionnel mujj nañu ko installé mu taxaw ci kanam waat ba noppi dem def passation de service au travail au travail waay ci événement solennel boobu na dalaloon doomi réew mi yépp ak yeneeni doomi réew ay njiitu réew yu sakkana sakkan institution yu réew mi kenn desul classe politique bi ñépp teew dal di firndeel taar gi taaru suñu dem démocratie am Badio Camara dal di fay def discours bu am solo dal di fàttali ne gannaaw li jaar ci réew mi yépp li tax ba réew mi këppuwul yënguwul demul ci kawoo secret bi du lenn dul urne ma ne yàgg naa ko wax de dal di soñu président Diomaye ne ko nag moytul ivresse au pouvoir maanaam mandi ci nguur fàttali ko attente xale yi li koy xaar ci réew mi yépp ca nag dal kañ président Macky Sall ci organiser gi mu organiser élection yi te mu jaar yoon si loolu yëpp nag le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël kaddu moom def discours bu am solo tënk ko ci réconciliation nationale taxawal justice bu am indépendance Afrique bu taxaw doon benn dal di moom boppam <laughs> ma ne ko daal réew màngook waaw yan bu diis la nag waaye di ko ñaanal yàlla na ko ci yàlla jàppale lii mooy Sénégal Sénégal waneeti na boppam mu doon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz